te manifestation yi bàyyi leen ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi bu kenn manifester attendez le vendredi plutôt à 15 heures man dinaa jóge Touba ñëw ba Dakar manifester avec vous je vais demander au, au commandant de la gendarmerie de m'envoyer une escorte ici à Touba te manifestation yi bàyyi leen ko. lundi mardi mercredi jeudi vendredi bu kenn manifeste attender le vendredi plutôt à 15 heures man dinaa jóge Touba ñëw ba Dakar manifester avec vous je demande demander au, commandant de la gendarmerie de m'envoyer une escorte ici à Touba.